jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokki tey ñu ngi ci jaxaay 2 fekk si fi borom xam-xam borom baatin boo xamante ni li ko yàlla may képp ku nekk ci tund wi xam nga kan mooy Serigne Bassirou Bousso muy borom xam yor daaray alxuraan ju mag di jàngale alxuraan gis ngeen ndaw ñi yëpp moo jàngal def ci seen dënn bi alxuraan mais kilifa la goo xamante ni li ko yàlla may ci ñaan yàlla bëri na muy góor yàlla bu ragal yàlla mën a seet mën a ñaan. mën a jàngale xam-xam taal doomu aadama nag li ko ci yàlla defar yaakaar naa képp koo xamante nii xam nga bëso bëso yi rek xam nga ne alxuraan dañu ko maîtriser ndax ña nga wàccee ca diggante rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soo ko xuus nag waxtaanee li xew ci rëkk bi sëñ Basiiru ñoo ngi lay sëñ Basiiru gis nañ euh, benn école privée bu nekk Mbuur ñu gis fa ay xale yu ndaw góor ak jigéen tëju trente personnes di la nga xamante ni moom mooy pour noo di def yëfi euh, saay-saay yi euh, ñu gis na yow ay ndaw nga yor góor ak jigéen di leen jàngal alxuraan di leen xamal yàlla kon yaakaar naa daara bokkut ak leneen ndax daara day defar waaye daara day dimbali mais ngay borom xam-xam boo xamante ni fi nga bokk dafa foor saw askan ku ko xam-xam ne Touba lu ñu fay sañc wala lu ñu fay nas yéen lañ cey jiital ngeen def ca ñaan yàlla ba noppi ñu soog koo ah, taxawal tey jii ah, sëriñ su bëri dañuy werante ci fànnuy seet yi ñi naan seet bii moo dagan ñi naan seet bi moo gën a baax ñi naan seet bi moo gën a leer en tant que professeur ci xam-xam tey bëggoon nañoo xam ban seet moo gën ban xeetu seet mooy gën a leeral li nga xamante ni moom mooy aajoob nit ki waaw jërëjëf siñ dégg ci laaj boobu waaye seet dafay lu mënta ñàkk ci mbir mu man di doon nit lépp lu muy dugg rek war na koo seet ba xam li muy dugg lan la soxna boo ciy dugg war nga koo seet bu baax ba xam li ngay dugg lan la kër ba ci suuf fi ne nit warta jékki-jékki rek ñëw jënd suuf rek tabax ko waaw war ngaa xool fi ngay jënd ba xam amul lenn lu la mën a yàqal lu fa lu fa nekk. Mm-hmm. ndax bari na koo gis mu tabax këram ba egg te dëkku ci mm-hmm. loolu moom li ñu koy gis bari na lool. Mm-hmm. seet daal day lu mënta ñàkk ba ci ato sax boo koy jënd fi ne da nga ko war a seet. seet moom mënta ñàkk ci mbenn mbir mu man di doon. ndax fi mu ne nit léeg nga nga dégg ko naan la sëñ bi man damaa ñaan lu ba sonn def naa lu nekk waaye mun maa fexe ba gis dara. ndax léeg ñett mën naa am ci nit ki. mu mu sangu xeetu sangu xeetu càngat bu nekk te du tax mu gis. ndax li léeg nit léeg-léeg rab mën na koo jàpp mën naa nekk itam koo xam ne cat mën na koo jàpp mën naa nekk itam koo xam ne xay na dañ ko liggéey bu fekkente ne nag dañ lay liggéey ngay faju rab doo gis résultat bu fekkente ne itam cat moo la jàpp ngay faju ku ngay ngay ngay ngay dindi ngay ngay dindi loo xam ne liggéey la ci yow ba tey doo gis résultat waaye xalaa kulli xaal daal seet moom bari na itam ba tey ay façon mooy ilmu raml mooy xam-xamu seet hmm. am na ñuy xool ci suuf hmm. dinañ xool ci ndox pittaaw sax am nañu ci xool donte lu xaram la waaye listixaar nag moom mooy bi wér bi moom bi mooy bi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la jàngale ñu ngir ñu war koo def waaye dëgg dëggi seet nit ki bala ma koo man faw day am li ñuy wax al ilmu nujum da koy xam dëgg-dëgg muy xam-xamu biddiw waaw xam-xamu biddiw moom lu mënta ñàkk la ci nit mu xam ko ndax boo ko amul mënoo fekk ko feebar nga faj ko munoo fekk ku nekk ci ay jafe-jafe nga teqali kook jafe-jafeem yooya munoo fekk itam koo xam dañ koo tëj ko soo nga tijji ko ndax lépp ci biddiwu doomu aadama ci laajoo te xam ku ne xam ne ne xam-xamu biddiw ku mel ne suñu mbàkki bu soo nga xam ne mooy suñu maam lim ci liggéey ba tey réew maa ngi koy jariñoo kon day lu mënta ñàkk waaye seet daal suñu borom defal nañ ci tawfeex joo xam ne amul dara loo xam ne dinañ ko ci wax nit ki muy dañ depuis ba ngay juddoo nekk ci kaw suuf ba fi nga toll ak li ci sa kanam lépp dañ la koy wax te dara du ci dañ insha allahu taala waaw waaye nag boo amul xam-xam boobu may wax muy na joom mm-hmm. nit ki mënoo fexe fexe ba wan ko dara lu leer ci ay mbiram mm-hmm. waaw loolu du mën a nekk waaw mbokk yi kii euh, maamam bokk na ci euh, ki nga xamante ni bokk na ci ñi gën a mokkal alxuraan Tuubaa muy sëñ Mbàkke Busa sëñ Mbàkke Busa ku ne xam ne digganteem ak Cheikh Ahmadul Bamba maamam moo daan naafila kaamilul Qur'an kon yaakaar naa jëmm ji toog ah, ñaankatu yàlla la moom mi waajuram digganteem ak sëñ Saliou yaakaar naa képp ku dëkk Touba ak li ko wër xam nga diggante waajuram bu góor ak sëriñ Saliou Mbacke sëñ bi tey bëggoon naa ñu waxtaan ci problème bi lu bëree bëree bëree bëri mooy yàlla bi ak njaaloo bi ak eh, def na ko sulu noonu li ko waral mooy jigéen ñu bëri góor ñi ñoo leen takkul wala góor ñu bëri jigéen ñoo bëggut séy ak moom nga ne ma yor ci sëy lay dox. secret boo xamante ni bu ko nit ki jëfandikoo day am borom kër wala bu dee góor day am soxna secret bi sëy laa bëggoon ñu xusi waaw jërëjëf si ñu dégg ci ci ci laaj boobu maanaam jamono ji doy na waar doy waar goo xam ne moom maanaam jéggi na dayoo waaye waajur yi itam war nañoo xam lan mooy responsabilité. ngir gën a góorgóorlu ci ndaw ñi gis nga loolu ngay dégg ci mbuur mooy xale yoo xam ne ay xale yu ndaw nga dégg leen ci naka su dul noonu xam nga ne loolu lu ko gën a doy waar amut. te nañ xam ne waajur yi ay sàmm lañ. te ku ci nekk la nga doon sàmm boo léegi dinañ la laaj nanga ko doon naka nga ko doon sàmmee. kon loolu nañ ciy gën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax. mbirum am borom kër ak am soxna moom jamono ji ñu toll doy na waar léeg gis koo xam dana dem ba am fanweeri at ba ñeent fukki at du mën am borom kër ba am ñeent fukki at te dana jekku boppam waaye du man a am soxna loolu rab dana koy faral di def waaye lu mu ci man di doon koo xam ne dafa bëgg soxna wala mu bëgg borom kër bu ñëwee yére bii ma sol muy perkal téere bi ñu koy jox ci lañ koy ëw balaa perkal bee tilim dina dégg alxayri insha allahu ku ñëw ci man wala nga jot ma téléphone li ñu lay ci perkal bu mel nii ma sol bu weex ci lañ koy ëw balaa perkal bee di nga waaw loolu moom noonu la demee. <laughs> ku xam sa njabootu si suñ bu Buso ñu xam leen ci baatin ku leen xam xam leen ci alxuraan euh, sëñ bi nga ne ma reenu ma xàncu ma xasuma ma alxuraan laa yor di ci jëf jëf joo xamante ni ka yor reen ak kay fitis la ma yor a gën a gaaw te la ma yor moo gën a leer nga ne lii di wërsëg ak taal doomu aadama li la ci yàlla may ak xam-xam bi nga ci am ak yoon wi nga ci am fitiseurs yi mënuñ ko. waaw suñ dégg waru nazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma alquran dañu leen ko wàcceel ngir mu nekk luy saafara te yërmande ci ci ci ci jullit ñi amul lu gën a gaaw alquran léeg-léeg nga dégg ko naan alquran dafa wala yaasu billah loolu yàlla nañ ci yàlla musal alquran lépp a ngi ci biir maa naa fil kitaabi min shay maanaam alquran bayiwu dara ñun lépp lu ñuy liggéey ci alxuraan ak tur yàlla lañ koy lañ koy liggéey waaw moo tax amul dara loo xam ne dañ ci jëflanteeg ni te du ci teg bëtam. Mm-hmm. waaw xalaa kulli xaal loolu moom du am mënta am. ubbeeku nag moom dañ cee yor ay càngat yoo xam ne yu yéeme yéeme la siñ jëkk mm-hmm. waaw moo xam nit ki millionaire la bëgg a nekk wala nit ki milliardaire la bëgg a nekk mm-hmm. yor nañ ci ay xeeti càngat yoo xam ne wax dëgg fa yàlla càngat yi nag càngat yu mag la ndax ñun duñ liggéey càngat yu ndaw càngat yu mag mag la ñuy liggéey yoo xam ne buñ la koy liggéey maanaam bërigo ngay teg mhm. bërigo ngay teg sa biir kër di di di ci sangu mhm. ñun nag ni ñuy liggéeyalee doomu aadama lépp lu ñu la liggéeyal dañ ciy def dañ ciy boole kaaraange mhm. maanaam doo yor dara ba noppi ñàkkaat ko xam nga nit boo koy defal faj dafa war a wér waaye defal nit dara ba noppi mu am la muy am ba noppi te jëriñoo ko loolu amul njariñ moo tax lépp lu ñu lay liggéeyal dañ ciy boole kaaraange waaye wàllu cangatu ibbeeku moom nit ki lu mu tëju tëju tëju lu wërsëgam tëju tëju tëju tëju am nañ càngat yoo xam ne bu ñu ko ko joxee bu ko jëfandikoo moom ci jëm boppam dina yëg ne carrément mu am na fu jógee am fu mu dem waaw ci wàllu cangat gàllaaj yu tamit euh, gàllaaj gu am la yenn borom seen xel yi naan nopp am ñu koy wax boole ñenn ngi naan euh, jubóole léeg-léeg nga woo xamante ni dañuy mel ne xaj ak muus léeg gis jëkkër ak jabar yoo xamante ni seen dund gi mbégte bariwu ci wala ñu bég bu ñuy bëggalante ay seconde lay doon ca lal ba sëñ bi ñu dégg ne yor nga gàllaaj yoo xamante ni day dox ci jubóole waaye day dox ci nopp mu nekk gàllaaj yu yoo xamante ni koo ko defal yàlla suñu borom dana ko dimbali ba du juwóoloo ko ko yàlla boole. waaw suñu dégg kër ay caaxaan du ko yor. kilifa da war a góor góorlu ci sa njaboot ci aar leen. ak ci taxawu leen. Mm-hmm. moom mii di wax ak yow suñu dégg sama waajuru góor bi mu fi bàyyi ko ak léegi mi ngi ci toll ci vingt six ans kenn mos a dugg biir këram di àtte kenn te ñeenti soxnaam yi mu yoroon yëpp ñu ngi ci biir kër gi kon kër ay caaxaan du ko yor moo tax mbirum jubale moom wax dëgg yor nañ ci secret yu bëri yoo xam ne képp ku ñu ko defal maam amul dara loo lay mën a taqale yow ak sa njaboot amul dara loo xam ne dana la mën a tàqale sa diggante ak sa soxna même bu fekkonte ne sawara sax dafa dox ci seen diggante bi boo ñëwee seen ñaari loxo yi bu ma ko kebelee nii ba mu kebaloo ma def ci li ci ciy def amul ci àdduna ku leen di mën a teqaleeti moo xam jigéen joo bëgg la di di ko dàq bëgg cee jot moo xam jigéen la joo xam ne itam dafa am góor gum bëgg bëgg cee jot lu mu ci mën a doon ci ñoom ñaar ku ci ku ma ci woo wala nga ñëw ci man dina la liggéeyal loo xam ne insha allahu taala dina topp ci yow comme ni xaj di toppee borom waaw ku ci ñëw ci man dina la liggéeyal loo xam ne dina la topp comme ni xaj di toppee borom. nopp dëgg bu jàppee wurtu gaaw a dañ. du dañ. nopp dëgg bu jàppee du dañ xanaa ki ko defoon dindi ko. waaw wala ki ki nga xam ne mooy borom kër ku góor gi ak jigéen gi ñu dem ñoom ñaar ba bëgg séparé ko waxtaan ci nag ba déggoo ci. nga xam ne benn jafe-jafe doxu ci moom ñoom ñaar la neex ñu xam ne ñoom ñaar ñi mënatuñoo dem ñu waxtaan ci ba déggoo ci loolu moom lañ koy liggéeyaale noonu lañ koy liggéeyaale nga xam ne saa yu demee ba war a dañ rek boobaa moom dana mën nekk ci ci ci jàmm ak salaam waaye li fekk ku góor ki mi ngi bëgg wala li fekk ku jigéen ki mi ngi bëgg amul kenn ko leen mën a séparé ci kaw suuf euh, sànq ci euh, salle d'attente bi ma toogee am na ñu ma fi dajeel dëkkuñ ci bitim réew lañ dëkk ñu ne ma ñoom sëriñ bi lenn rek moo leen fi andi muy gàllaaju kàttan gàllaaju ngóora ndax ña leen boole ak yow dañoo amoon problème ak seeni soxna ndax bu ñu daan sëy dañuy gaaw a jot seen bopp ñooñu dem ba léegi seeni soxna di leen tagg di leen màggal ci lañ leen joxe sa numéro ñu ne ma boo jëlee micro bi leeral leeralal loolu kon secret ngóora am na lu la ci yàlla dénk. waaw suñu dégg jërëjëf ci laaj bi maanaam ngóora boo ko judduwaalewul ak nu mu mën a mel ci yow ak loo doon loo magee mage magee lu at yi bari bari bari boo ñëwee ci benn fan lañ koy saafara. liñ lay jox amul ay traitement ngay naan di dem ak def maanaam benn yoon nga koy jëfandikoo jeex na. nga mel ni nga ko bëgg. benn fan fi ne ay yokk xawra ak yooyu yëpp ay caaxaan la. dëgër gi ak man ak lañ koy doyee mu man ko loolu mooy njëriñ li ku ñëw liñ lay jox ci benn fan lañ la koy jox nga jëfandikoo ko jeex na. kon yokk aw alalam. déedéet loolu ay caaxaan la si si loolu ay caaxaan loolu xelum doomu aadama sax nanguwu ko. Mm-hmm. waaw lu mel noon képp ku koy def naan ay yokk xawraag yu mel noon ay effet secondaire dina ñëwaat yoo xam ne. Mm-hmm. lam la la nga jàppoon ne moom la lay fajal lu ko raw fuuf la lay yàqal. Mm-hmm. waaw suñ dégg. Euh, sëñ bi bëggoon naa xam téere bii téere bi lan la damaa gis mu nekk téere yu bëri yoo xamante ni euh, dama koy fekk mu jógee euh, man nag damaa sopp lu ma gis rek dama cay bëgg di laaj lii la. suñ dégg lii nag bayre place la. lii nekk na loo xam ne bitig bu ñu ko takk wala barab bu ñu ko takk barabu liggéeykaay bu mën a doon nit ki moom mooy dem ba ba ba sonn rek tëj palaasam waaye nit ñi dañuy bàggante nii jaay ma jaay ma jaay ma jaay ma jaay ma commerçant yi kon sonal nañ la si. lool ñoo ma gën a sonal li ma koy liggéey kenn xamul nu mu toll. waaw li ma koy liggéey moom kenn xamul nu mu toll bayre place. ak gàllaaju sàcc. moom li ñu ciy liggéey moom kenn xamul nu mu toll. bàyyi nga ne jàngoro yi. même koo xam ne sax dañ laa sàcc nga bëgg mu feeñ. boo ñëwee mën nañ laa wax ki sàcc kan la. Ah? waaw bu dul lu yàq ak mbokk. Mm-hmm. bu fekkee nag dafa nekk ci biir mbokk ga nag mm-hmm. loolu moom duñ ko tudd waaye mën nañoo fexe ba mu delloosi ko bu dee sànkoo gut mën nañoo fexe ba mu ko. Mm-hmm. waaw loolu. sëñ Basirou siti euh, ak hémorroïde bokk na ci li yàq. biiru doomu aadama yi mu nekk jàngoro joo xamante ni euh, faj ko jafe na waaye faj ko yomb na ci ku ko yàlla baaxee jàngoro siti ak hémorroïde laa bëggoon nga andi ci leer. jërëjëf siñ jëgg mhm. siti mooy li gën a sonal doomu adama daanaka xeeti feebar yu bari yu ngay dégg mhm. moom moo koy jur waaye ñun nag dañ cee tànn émorite di ko faj ba mu wér ci diirub juróom-ñaari fan émorite lu doy waar doy la ci jamono ji toll daanaka ñëpp daanaka booy xool ñu bari am nañ ko mhm. muy bi ci biir muy bi ci biti te émorite dëgg ku mu nekk ci yow mën ngaa dem ba jàpp ne raba la jàpp ndax day xëm loo nit ki eh? di la waxtu loo di tàngal saw yaram maanaam man ngay dem sax bay tam nit ki émurit ku mu dal dëgg-dëgg man ngay dem bay tam doomu aadama waaye bu mu ci man di doon muy ñaar yooyu muy muy muy bi ci biir wala bi ci bitti mm-hmm. bu dee bi ci biir la mm-hmm. garab gi ñu lay jox boo ko jëfandikoo da gis booy tuur ndox liquide bi muy doon liquide bu rattax lay doon génn bu dee bi ci bitti itam duñ ko seeyal ñun mm-hmm. ndax bu seeyee mën naa dem ba mu yàgg mu dellu siwaat déedéet ñu duñ ko seeyal maanaam daf koy ñoral ba mu ñor mu bënn bu bënnee da ngay gis ni muy toqee benn liquide lay doon boo xam day am xet bu dañee dootul ñëwati ñun duñ faj loo xam ne day wér ba noppi di ñëwati mukk déedéet bu wéree dootul ñëw bu wéree moom dootul ñëwati ay ca mbokk yi euh, dégg ngeen Serigne Bassirou so jàmbaar la boroom xam-xam la kilifa la ku yàlla dénk wàllum kurus la numéro téléphone yaa ngi noonu affiché ci suuf ecran bi ku ko ci woo rek da ko jot mais sëñ bi des fois tamit dañu gis daara ji lu bëree bëree bëri euh, doo fi nekk waaye ci kër gi ngay nekk nga fatu ay bis ne ci xallo gi tey bëggoon nañoo xam yan xeeti soxla ak yan xeeti euh, aaju la nit ki di am ba mu jaral la nga duggal ko xalwa parce que li ngay faral di fatu di dugg xalwa tamit bari na. jër jërëjëf siñ jégg xam nga dafa am yitte yoo xam ne du bind moo koy saafara. faaw loolu da ngay jël kurus toog dugg dugg xalwa ngir jàkkaarloog jëmm jooju. te itam dafa am jëmm yoo xam ne mënuñoo sangu. mënuñoo takk ñooñu faw ci kurus ngay mën di jëflante ak ñoom waaye xalwatu daal moom am na xeeti liggéey yoo xam ne am na xeeti maanaam soxlay doomu aadama yoo xam ne faw xalwa rek nga ko mën a dugal waaw faw xalwatu rek nga ko mën a dugal càngat du ko saafara laneen du ko saafara faw nga dugal ko xalwa lu mu néew néew ñetti fan ba ñeent fukki fan ak benn dañ koy dugg xalwa xalwa moom wax dëgg lañ koy dugg bari na lool sax waaw li ñu koy duggal ay nit bari na lool rawatina mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo féete bitim réew maanaam léeg nga gis ko xam ne day soxla ab tubaab bëgg tubaab bi topp ci ginnaawam di daw wala këyit këyit moom moom këyit daanaka ñu bari ci ñaan siñ siñ jégg ci la ñu xam ci la ñu njëkk xam waaw ñaan wàllu këyit siñ jégg daanaa jële fii doomu aadama fii ci ci kaw fii ci fii ci ci Sénégal di ko toppatoo ba mu egg bitim réew te duma ko laaj dara ñaanal ko ba mu am liggéey liggéey ba yàlla defal ko tawfeex mu doog ko joxe weexal loolu li ma ko def moom kenn xamu nu mu toll waaye nag ginnaaw bi li tax ñu arrêté woon loolu mooy ñu bari dañuy dem bay dugal ci lu ci bokkut waaw waaye wàllum këyit moom dañ ciy liggéey loo xam ne muy këyit muy ah, këyit yoo dugal ngir ngir ngir bëgg am liggéey wala lu man doon ci yooyu mm. juróom-ñaari fan du ko man te woowuñ la ci wax ci wax la ci lu leer nañ juróom-ñaari fan moom du ko mat euh, yoo gis ñuy dox juróom-ñeent ya rab moo leen sonal waaw rab nag moom daanaka moom moo moo moo lëmbi réew mi siñ siñ siñ dégg te li muy yàqal doomu aadama bi dafa bari mm-hmm. ba yëg nga ne rab dinay toxloo nit di ko naanloo ah? di ko jëlloo alali jàmbur suñ dégg léeg-léeg nga gis nit koo xam ne day def loo xam ne bëggu ci dara di surtout koo xam ne day téye xawraam di ci fo mm-hmm. loolu nit bëggu ko rab moom moo koy def suñ dégg rab du feebar rab du feebar du lu boo déggee ko naan rab dañ koy wutal ay traitement ngay rab du feebar. Ah. rab luy dugg doomu adama la day dikk nga dindi ko teg ne rab dem doomu aadama bi dem. ci benn fan. rab moom ci benn fan lañ koy lañ koy dindi mu teqale ko ci benn fan. lañ ak rab nu mu diisee. ak rab xam nga rab jinne moo am. Hmm. dafa am ay jinne yu gëm yàlla am jinne yu gëmul yàlla jinne seyaatin yooyu nag ñoom ñooy dugg doomu bi di ko yàqal. olof nag moo baaxoo def lu mu xamul lu ne wutal ko tur. Hmm. mooy rab mi ngay dégg. waaye nag mën naa def loo doomu aadama bi lu nekk maanaam dina dina maanaam léeg nga dégg koo xam ne dañ naan la waajuram moom la moom la joteel jigéen wala nga dégg koo xam ne séeréem la joteel moom jigéen loolu ak nit xam nga mënu ko fekkewu loolu nag rabi see jinne seyatin yoo xam ne ñooy dugg doomu aadama bi ñoom ñoo koy def loolu mm-hmm. léeg-léeg nga dégg koo xam ne day doomu aadama bi sax di ko tam mm-hmm. nit mun ta lekk moroomu nitam waaye rab ci boppam moom mooy dugg doomu aadama bi di ko wax loo waaw moo tax lu mu ci man di doon ci xeet yooyu ak lu mu ak loo ko faju faju faju wérut mm. boo ñëwee ci benn fan laa koy dindi nga dem mm. jeex na tàkk sëñ bi lan ngay wax bandi ak trafiquant de personnalité yi fajal nit rab di ko filmer ah, loolu tamit yaakaar naa ñàkk sutura la nit ku baax du ko def waaw loolu di daa amul benn njariñ sax ndax wax dëgg yàlla xam-xam moom ku ko yor te muy dëgg fi ne yooyu yëpp boo boo ma koy seetaan sax wax dëgg ay ree daf may jàpp ndax dindi loo xam ne bu subaa nit ki ñëwaat dañut faaw nag nit ñi ñu wuti xam-xam te bañ a jam ci àdduna yi kese kese kese nañ xam ne àdduna moom lu mu neex neex neex ab jaar waay la day jeex kon nañ ragal yàlla ci li ñuy def am na ci solo lool nañ wuti xam-xam daal moo gën yooyu ñuy def yëpp yu daanaka yooyu yëpp ay tappale kese la amul benn njariñ waaw amul benn njariñ daan liggéey daan am yàlla daan ko dénk wërsëg mu dem ba jëmm jamono ñu liggéey ko yàq àddunaam sëñ bi borom barke yu bëri jamono ji seen problème mooy est-ce que li yor dina continuer di fi nekk ku yàlla dénk wërsëg mu bañ a yàqule fan la mën a jaar ba wërsëg woowu taxaw te du yàqule ñu bëri seen loxo dafa bënn ñi dañ leen xabtal di leen xiir ci loo xamante ni seen alal dafay taxawaal. waaw suñu dégg mbir yooyu bu amee maanaam gis nga mbir mu man di doon. bala nga ciy jublu da war a waajal sa bopp ba noppi soo góorgóorloo ba am ko waajaloo woon sa bopp itam dabaatal ko dabaatal moom lu mënta ñàkk la euh, waaye daal xalaa kulli xaal lu mu ci mën di doon ci wàllu mel noonu moom wax dëgg fa yàlla dañ ciy liggéey kaaraangeel goo xam ne loo am ci àdduna amul ko mën a yàq ci kaw suuf waaw boo góorgóorloo ba am sa sa alal amul dara lu ko mën a yàq ci kaw suuf kenn du ko mën a sàcc tàkk-tàkk bu doon tàkk ba ñëwee ba jub sa place day fay ah. tàkk-tàkk bu doon tàkk ba ñëw ba jub sa place day fay. Mhm. amul dara lu mën yàq sa place. waaw amul dara lu ko man yàq te nit te itam du la mën a sàcc. Mhm. waaw kenn du yàq sa alal te itam dañ ciy liggéeyaale loo xam ne même bu fekkonte ne da nga am ay employés sax dañuy juboo dañuy nekk benn. Mhm. ndax loolu avantage bu borom entreprise la. ndax bu ñu wut fi ne yàqal la moo ci gën a gaaw. waaw moo tax yu mel noonu moom xalaa kulli xaal dañ ciy liggéey liggéey am solo suñu dégg. waaw tey eh, bëgg naa la laaj ci doxalinu jamono nan gisee politiciens yi ni ñu nekkee bu njëkk benn camp la woon waa PS ñoo jékki-jékki nekk PDS PDS jékki-jékki nekk APR kon yëf yi danaan tourné mais Sonko dafa ñëw créé leneen lu bees xale yi ak ndaw ñi jox ko bopp. ñenn ñi ne dafa ñëw ngir guux ndaw ñi ñenn ñi ne déedéet Sénégal moo soxla xar kanam bu bees am ñu ne déedéet Sénégal xar kanam gi mu yor baax na ah, lan ngay dénk politiciens yi. waaw li ma leen di dénk rek mooy ñoom ñëpp nañ xam ne réew mi moo réew mi moo leen moo moo leen war a ñor. Mm-hmm. ñoom ñëpp réew mi moo leen war a ñor. Mm-hmm. moo tax nañ joxante loxo te nekk benn. Mhm. te itam nit ñi dañoo bëgg ku leen di wax dëgg. Mhm. wax dëgg dafa am solo ci mbir mu man di doon. Mhm. Euh, sëñ boobu nga tudd léegi nag. moom wax dëgg yàlla ku bi ku biddiwam fenq la. waaw waaye bu mu jàpp mukk rek ne ni mu jàppee ne noonu lay yombe noonu lay yombe gàllankoor benn weesoogut ci jëmmam. waaw moo tax na def ndànk te góorgóorlu bu baax. waaw bu góorgóorloo te def ndànk te jaar fi mu war a jaar suñ borom dina ko defal tawfeex allah. Euh, bu ndaw a ndaw def ci moom dara day jafe mais ñu bëree bëree bëri boo gisee fii xale yi macha allah euh, njàng mi dafa gaaw ba pare gone yi njàng mi dañ cee jiital cofeel jiital ci bëgg jiital ci mbégte bu ñuy jàng da ngay xam ne lii ñoom ci seen bopp yaa koy def ci ñoom waaye ñoom sax ñoo la ko euh, gën a bëgg ndax sànq gis naa am ci ñoo xamante ni nga leen demal nga toog noppalu wàcc nga mu jëlaat àlliw gi di jàngaat loolu day wane ne maanaam xale ku bëgg yàlla la waaye ni leen ñeen ñi di jàngalee moom moo des waaye xeetu njàngale mu rafet mi am fii ci plan jaxaay ci jaxaay 2 loolu tamit bëggoon naa nga ñëwaat. jërëjëf suñ dégg laaj nga ma laaj bu ma neex mhm. ndax ñun suñu liggéey alxuraan la mhm. moom rek la ñu nàmb te itam moom rek la ñu xam mhm. waaye xale yi dañuy jëflante ci dañuy jëflanteeg ñoom ci ma ak xisa ak xasana maanaam ci pédagogie liñ jàngal fii ci ay xale ci alxuraan ci diiru lu man ñetti at kenn xamu nu mu mii di wax yow fukki at ak jàng naa ko alxuraan doo ko bind waaye xale yi bu ñu dañ lay xool léeg-léeg nga gis koo xam ne waajuram bu la koy indil sax daan xale bi daan naqari xel waaye man loolu du ko nanguma ko ñàkk xam xale moom mooy waral lu mel noonu mm-hmm. léeg-léeg nga gis xale boo xam ne ay juróomi at ay ñeenti at dara mm-hmm. ñun na xale bu ñëwee dañuy fexe ba bindal ko kiis ndax ñun am nañ kiis yoo xam ne dafa ne dafay neexal xelu xale bi ah waaw day tax a doon ci bu ñëwee dañ koy jox loo xam ne xel mi day ibbeeku ndax léeg-léeg nga gis xale boo xam ne ba ci jànkati tubaab mm-hmm. xel mi day ibbeeku mu nekk jàmbaar loolu mais bu examen jubee rek dootu xamante dara fu mu toll bopp buy metti lay am mbiram yi dara dootu ci dox waaye yor nañ ay kiis yu am solo yoo xam ne ñun suñu xale moom lañ leen di moo tax xale fi nekk ñaari at balaa man ñetti at nga mokk alxuraan tarikaam bi dem sa yoon waaw euh, sëñ Basiiru lan ngay tàggatoo ak looy askan wi lay suivre ci MPROD TV euh, jërëjëf suñu jégg xanaa di sant suñu borom bu baax a baax a baax ndax ñun li ñu gënoon a bëgg suñu borom defal nañu ko uhuh. muy toog di jàngale alxuraan wut ay nit ñoo xam ne ñoom ñooy yor xale yi di leen di jàngal ñu warlul leen la war ci ñoom uhuh. Euh, ba tax na daal ñi ngi ñaanal réew mi jàmm di ñaan réew mi nañ joxante loxo nekk benn sëriñ si itam ñi nga xam ne ñooy nekk ci internet bi dañuy wax nañ yéeneente jàmm te joxante loxo képp ku ci am xam-xam na doxal xam-xam boobu te boole kook yar ak i teggin ku ci amul xam-xam na di mbuti xam-xam ginnaaw loolu lépp itam suñ jégg ñi ngi leen di sant bu baax yéen itam di leen gërëm yaag dëgg ay nit ñu baax ngeen wa ma shahidna illa bima alimna li ñuy topp jotaay yi bari na waaye wax dëgg gis nañ njar bi ak teggin yi gis bu baax itam rafetal gi nga xam ne yéen koy doxal ndax yonent bi sallallahu alayhi loolu rek moom moo ko indi moo ko fi indiwoon fexe ba jikkoy tedd fexe ba jikkoy baax ñi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen télé bokk ko ci télé yi nga xam ne télé yi gën a mag ci àdduna bi la doon waaw te itam na dalal seen xel bu leen tiit bu leen jàq bu leen jaxle ku munta yéeg ba tiim asamaan si du leen yàqal li ngeen di def incha allahu taala jërëjëf ay ca mbokk yi Serigne Bassirou seet si woon muy kilifa di borom xam-xam di ko xamante ni li ko yàlla dénk ci baatin bëri alxuraan ji nga xamante ni samp na ko ba mu ko sampee fii ci jaxaay de ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri dañ ne woon yëf yi day tàmbali rek waaye dem nañ ba monde bi kenn ku nekk di ko andil sa doom ngir xeetu njàngaleen bi waaye ngir xeetu xam-xam ak yar ak teggin bi muy def ci xale yi yàlla dénk ko nag baatin lu xale të të të boo ko ko indilee xale ba yaru jiital cofeel ci lii muy def muy njàngu alxuraan bi muy borom kurus. di wàllu ndax surtout wàllu la yàlla dénk ko xam-xam yàlla dénk ko li nga xamante ni moom mooy barke mu ci dimbali jaam yàlla yi seet li ko ci yàlla may ñu yàgg jëflanteeg moom xam nañ ko bitim réew ña fa nekk des fois nga gis koo xamante ni da koy woo coupé aajoom faju loolu lépp nag ah, barke moo koy def ak maamam ju baax ji Serigne bu so bu ñu nee Serigne bu Bousso xel yëpp dem ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadul Bamba ñoom rasulullahi moom mooy seen maam mbokk yi numéro téléphone Serigne bi mi ngi nii affiché ci suuf ecran bi képp koo xamante ni woo na ko rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla ngeen bari jàmm ci darajay Muhammad rasulullah